dal leen ak jàmm mbokk internet yi Papi Amar doom ci dem si yàlla Ameth Amar ak Mami jaxatee di doom ci Moustapha Jaxate ngénte nañ seen doom bu jigéen tuddee ko Mame Diarra Bousso ma Madiop Amar ñu gën koo xam ci Papi Amar nekk doom ci kile di dem si yàlla Ameth Amar milliardaire bi moomoon NMA Sanders ak Mami Jaxate di doom ci Moustapha Jaxate moom mi fi nekkoon ab membre APR di président groupe parlementaire am na ñu mbégte ñoom ñaari wëy dencante yi ñu ngi sëyoon ca weeru kooru daaw ña ngi ko takkee woon ca Touba ba tey ñu ngi fàttaliku xew mu neex te mi nga xamante ne moom la couple bu yànj bi amaloon ngir fësal seen mbégte doon ay jëkkër ak jabar tey jii ñoom ñaar ñu àndaat ci mbégte ak bànneexu doon way jur dalal seen doom ju jigéen ji gane si àdduna ñu tuddee ko Maam Jaara Buso Amar xew yu rëy te yaatu la ñu baaxoo woon ci ngénte yu nu mel waaye mbasub doomu jàngoro coronavirus ak couvre-feu bi tax na ba ñu def lépp ci tekk dal ak sutura yenn ci ay borom doole ki daraja la ñu tànn ngir ñu fekkee boobu yooyu la xew-xew ci samedi ji tolloo ko bés bu njëkk ci weeru koor ngénte li ma nga amee ca almadi te kër bàyyi soxna si di Moustapha jaxatee jàkkaarloo ak Dakar City ci fàttali Papi Amar Mami Jaxate mooy ñaareelu soxnaam ndax ci li ko jiitu takkoon na fii sërub Sara Cissé mi nekk ca TFM ñoom ñaar yàlla jotoon na leen a dénk ñaari bant ci waxtu woo xamante ne rakkam ji góor jii di prison ndax lu jëm ci wàllu faatub Iba ji Papi Amar moom mu ngi honorable la yeyoo cër bu màgg biñ ko jagleel nekk président directeur général bu NMA Sanders bi fi baayam ja Ahmed Amar bàyyi te mu wuutu ko ci na mu gën a rafetee moom Papi Amar moomu moo doon tudd doomam ju jigéen Tactic TV mu ngi ñaanal doom ji di jaaro bu soow yàlla na méngoo ak turandoom ja te jël ay jikkoom ak jikkoom yu kawe yu tedd ya soxna jaaro bu soow yàlla na xale bi gudd fan te ay juram fekkee njariñam jërë ngeen jëf